kon chef de yi ak délégué de yi yéen itam amaan ngeen leneen ndigal lu bees ndax village bu ne ay délégué de yu bari dafa ne ci biiram am na ci yoo xam ne dangay gis benn quartier lu ëpp ñaar sukki délégué de quartier ni ci biir délégué de yi kon ñoo gën a jege nit ñi kon ñoom village chef de bu ñëwati bu jugee fii la lañu fi tënke bu demee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 ñu gën a góorgóorlu